dafa naa jàngoon ñu ngi tolloon ci tabaqatu ruwaat fi asri riwaaya muy ñetti maas yu njëkk yi ñoom riwaaya ñii ne ñeenti maas yu njëkk yi jëlee na ba ci gannaaw maas ak juróomeel ka alhamdulilah moo indi woon nag xadis yi xaaj gim xaaj nañu ci ay كوريل من قال وانا الحافظ ابن حبان البستي من فات التراسون سنين كارتي قدائي خطي يرنتو كن مولين سصل اي مك نجريتي اي مك بجي يرنتي اني نك من املي دنا فيتي فيتي ما يوخ غير ديك في ذكر من تتدو نيغا خمنا حملا وملا قاد نجع يعني نشنو إلى المقمقم كتاب نلف نياري تيري كتاب تيري بوغم أذكر دناتو بفيتني وأسقات نيورني من المحدثين تنينة الحديث وكتاب الأكتير بوغم أبين دنال لرم فيتني ومؤدو عفاني لطني والمتروكين أمين بايني وابدو دناكو ماسي منه ماسي من نار بسقات نيورني عندي تيري بوغم نيورني siqa yi rek la ci indi yi nga xam ne nii ñu wóolu seen ak maandu ak seen ak xam-xam nag xam nga kon gars yi daawuñ popolo ak téere boo xam ne daf ci leeral ñu lott ñu kitaabu siqaat yi nag lay njëkk indi naskuru dañuy tudd man saxiba ñu ànd ak rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waaxidan kenn ala waaxidan waaxidan kenn alal moo jëm def leen ci ay xaraf ñu ñu commencé alif ba ñu commencé surtout commencé baabum jeex nga gars yi xam sax saxaaba yi ñoo ñan ak ñi jëlee ci saxaaba yi li ngir xum ñoom xayru naas ñoo gën ci nit ñi xar nañ ci maas baada rasulullah gannaaw yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yi ñoo gën ma naa ku topp ñu tudd baadam seen gannaaw a taabiina taaba yi ñëpp la ñuy tudd alladina ñi nga xam ne saafahu saafawante nañ ak asaaba rasulillahi sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi aqaalimi ci gox yi kulli xalib sahaaba yi dañoo tàqalikoon waaye nag gox bu nekk rek sahaaba ñu ñoom fa dajeeg si ay taabiina yi borom xam-xam yi xam nañ leen bind nañ leen alal moo jëm ci ay tomb it ay xaraf daal dégg nga ngir hum ñoom xayru naas ñoo gën ci nit ñi baara saxaaba ci gannaaw saxaaba yi xar nañ ci maas taabiin yi seen mas moo gën gannaaw maas saxaaba yi maas gu yonent teg xaydu fu jigéen de su nas ku topp ñu tudd alxarna saali sa maas ak ñetteel ga àlla dina ñi nga xam ne aw gis ne la taabiin taabiin yi même ñu dajeeg ñoom sax gaa xam waazkurum danaa leen tudd alaa naxwi ma zakkar naa ci kem nuñ tuddee tabaqatay ni ñaari état bi al ula yi nañu njëkk yi par xaraf su ma naazkuru topp ñu tudd alxarna raabee maas ak ñeenteel bi alladina alladi yi nga xam ne alladina raaw gis nañ at baa taabiina ñu topp taabiina ala sabila man ci yoonu ñu leen jiitu ñi ko commencé tur daal lu indi ban jeex moo ni wàññi Xibbaan nii la def gis nga mag ñi dañoo sonnoon ci xam-xam waala xarnu maas gi mooy maas ak gi yéen tey dana jeex ila zaman naa suñ jamono xaasa bi bu may tëdd maas ak gi danaa ñëw ba suñ jamono ma jeexal borom xam-xam yi intaha jeex na kon moom wax na gannaaw yonent ci jamonoom ña doon sonnee yëpp di ko nettali andi na leen ci téere ñi ci gannaaw am na andi ndax fekkeewut ko وقال من الحافظ أبو عبد الله الذهبي نفاد ستان كرمت وتقالي نفرحد التقل فرحد الدوية الفاسر بأجي تقل بين المتقدم في ذلك أنتم جيتوا ولا المتأخر أن يمجي هو موم رأس سنة الثلاثمائة موي بوبو أتوني تتيمر ها مرام نيجا كني mooy ñetti téeméer at njëkk yi mooy ñetti maas yu njëkk yi ñu mujj ñi mooy gannaaw ñetti maas yooyu dégg nga xaaloon ay dem ba tey mooy xaadal waxtu si bi la waxtu ay awaaxir mi at mooy mujj ñeenti maas yu njëkk yi mooy ñeenti téeméer yu njëkk yi téeméer yu nekk maas la mais hijrati ci gàddaay gi mu ne ba nga xamee ne euh, mas bu mujj gi maanaam ñeenti téeméer di njëkk waaj jeex danaa xasa wàññeeku ne alxifzu mokkal mag ñi dañ daan mokkal dañ daan bañ a bind sax ndax bañ nit ñi sukkandiku ci liñ bind ba fàttali ñu mokkal xanaa xamoon ne tey bu fekkoon xam-xam duñ ko bind ñun ñu bëgg a jàng yëpp dinañ mokkal téere yëpp force te duñ ko fàtte parce que dañu xam ne loo fàtte mu dem te téere yi bëreetul loo góorgóorlu di ko tari da ko def ñoom noonu lañ meloon te boo miinee di mokkal mokkal daf lay yomb daf lay yomb boo ko weddee rek xoolal jamono yi nga xam ne danga naan yittewoo mokkal bu baax ak banku bàyyi du nekk benn jamono yi mokkal daf lay yomboon lool ay kii yu bëri mënoon nga ko mokkal fii nag ba demee nga xam ne ñeenti téeméeri at si njëkk yi ñu ngi jàll mokkal dafa wàññeeku وقل من الاعتلاء وصلنا بالآثار في حديث وركن مجين العلماء برم قم إلى تقليد شري وكان ملك التشيع أذكر في الشيعة والاعتزال أكبر معتزلي والبدع أكبدع ظاهرة داجي فين وأم داجي نط بين عراق عراق listilaay aali bu way hin ngir notoog ñooñ aalu bu way hin dañoo not foofu tasaare fa loolu foofu wa bi misra tasaaroon ci misra wa sham ak sham wal listilaay banu ubayda al baatiniya banu ubayda ñoom ñoo askanoo ci baatiniya ñoom it gox yooyu bi daa daal di nag nasalu ñu ngi ñaan allah yàlla alaafiyata jàmm baatiniya ñoom ñoo alquran dañ koy firndu la neex rek li baatin fa min haadi nusuus yi ne taxi yum ki dana jàpp ne xasru xasru tabaqaati ruwaat ñum takk état bu ñooy nettali xadis raïsia yi njiit fi asri riwaaya ci jamono yi nga xam ne ci lañu solo xadis fi tabaqaati atiya ci kuréel yi dikk mu ne taxi yi jàll mën na laa jàngal jox la tënk boo xam ne da man a takk ñi doon nettali xadis ci nii ñu ko bëgg a waxee bu njëkk al ula bu njëkk as saxaabatu mooy saxaaba yi ridwaanullaahi nga man yàlla alim yàlla nekk si ñoom ñoom ñëpp benn tabax lañ parce que ñoom ñëpp bokk nañ ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bokk nañ melo waaye seen gannaaw it waaye biir saxaaba it am na ay garaat asaanitu étape bu ñaareel bi mooy ñu topp saxaaba yi mooy ñu gis saxaaba ñoom ñëpp ñoo bokk loolu asalisatu ñetteel ba atbaawu taabiina mooy ñu topp taabiina maanaam ñu ànd ak taabiina yi raabatu ñeenteel bi tabaxul atbaa wala tubbaxul atbaa mooy ñu topp ñu topp taabiina yi saxaaba yi ak ña gis saxaaba yi ak ña dajeeg ña dajeeg saxaaba yi ak ña dajeeg ña dajeeg saxaaba yi maanaam taabiina tabaxatul ula maas ku njëkk di étape bu njëkk bi asahabatu mooy sahabal kiram yu tedd yi radiyallahu anhum yàlla gërëm leen gannaaw yonent bi ñu ñooy njëkk ci ñu wëttu sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sunna neexul jëm qaala woon al imam ibn abi hatim muy far 327 ci gàddaay gi ni fa amma ashabu rasulillahi waaye sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam فهم الذين يعني يقمن شهدوا تاويلا الوحي وحي وتنزيل واتى القران وعرفوا يعني ان يقم التفسير في القران والتاويل التاويل القران وهم يوم الذين يعني يقمن اختارهم تنلا الله يلعظون ان وجدت معنا لصحبة النبي بني عندك ينتم صلى الله عليه وسلم وسلم ونصرتي يوم يلا تنبني دمبل ينتم way xaamati diine yi ñoom la yàlla tànn pour ñu taxawal samp diine wa izhaari xaq yi ñoom la yàlla tànn pour ñu feeñal xaq yàlla am faradiyahum yàlla gërëm leen saxaabatan ñuy àndandoor la ñeel yonentoom wa jaalahum mu def leen alaaman ñuy drapeau ñu maanaam ñoo ñuy wan ni yonentu doon doxalee wa qudwatan te ñu roy téef lanaa ñeel xam ne noonu lislaam lañ te noonu lislaam yi léegi nañuy xeexee lislaam soppeeku na de dañuy nekk jullit carrément fekk gëmuñ ko pour xeex lislaam wala ñu fexe ba jënd ay jullit xeex loo lislaam yow nag bul tuumaal kenn ne jullit si ñooñu la bokk te la waaye koo gis mu wax seeni wax daw ko koo gis mu porte seen mission rek moytu ko bokk na ci porte seen mission jéem a dajj sunna bokk na ci jéem a porte seen porte seen mission jéem a wàcce garaatu saxaaba yi saxaaba yi ñooñu jox diine bu da nga wax li sien yi wax yi ñoom murtan nañ lu mooy ñu tuuti léegi diine ji kon wéeru parce que ñi ko jëlee ñëpp du ñu ay jurit nañu def moo na ñoo xam ne noonu wax saxaaba yi murtan nañ nangam nangam am na ñoo wax loolu de dañ naan xadis yi nangam nangam seen waxi bopp danañ wax ba sonn te dina yàlla ji woy xam nga maanaam loo xam ne yàlla moo taxaw garanti ko ne yuri doonu liit fa nuura laay bi afwaayam dañoo bëgg a fay leer yàlla seen gémmiñ gi yàlla bañ na nga nekk yow bëgg bokk ci mbooloo moom di wax ba sonn da ngay sonn sa bopp rek hmm? la nga ci am ci àlla di ko lekk bu la ko nit ñi waroon hmm? dafa mel ni ay cabinet maanaam bula la yàlla waroon li ngay lekk ni mu salte dafa mel ni ay cabinet hmm? taajal taajal ay cabinet xañ la aljana nangu ko noonu la mel buñ la utiliser jox la xaalis jox la alal financé la ngay xeex lislaam mu mel ne laa taajal cabinet wala bu rafetee ba rafet mu tuddee ko ñam wuñ tooke ñam wuñ tooke lekk gi neex na gaa dibi yaa ngi nii yëpp naan gaa ngi nii waaye lépp dañ koo tooke def si sobe su salt soo xam ne gisoo ko waaye boo gisoon sax da nga koy seexlu jox la nga commencé di ko lekk yaakaar ne yaa si nekk est ce que da ngaa nekk si dara fekk doo am dal nit ñi dañ la saaga dañ la xas la ŋàññ nga dee am léegi yàlla dara daf koo jër dara jaral jaay sa diine yàlla musal bul bàkku nag parce que yàlla lu ko neex mu yoon wu ko neex mu jaar loola de waaw tax tulloo ma lu tax ma ne la loolu ñuy lekk ak alal yi ñuy financé yëpp pertement lay doon mooy alquran wax na ne danañ financé seen alal ba ñu not leen summa yoox la boon xul dégg nga ñu ngi financé seen alal ba summa yoox la boon waaye alquran it xamal nañ ne innamal mushrikuna najisun xéeféer yi bokkaale kër ay sobe la seen yaram bi dafa taq sobe maanaam ñu la gën a seet foofu laal parfum bu baax xëy lu neex te teew sobe la boobu ban façon sobe la sobeeg maana seen yaram bi dafa taqi bàkkaar te bàkkaar bu yomal xiyaamate bu ko yàlla fësalee sa kaw yaram bi day gis yaram bi dafay salte xasaw ñu ñu jépp ko preuve rek mooy njaalokat yi waa safara si moom dañu fat seen bakkan yi ndax xet gu naqari gi leen xet xëy yi moo nekk parce que la daan ci ñoom noonu la saltee seen awra yooyu ñu utiliser ci lu bon loolu mu ngi mel ni jël sa làmmiñ yooyu dugal ko ci foos rek di di naan loolu saxoo ko tene noonu la affaire bi salte woon mais ñoom yëguñu woon salte bi ndax dof gi nekkee woon ci àddina xel mu gàtt mi amoon ci àddina ñu yaakaar ne loolu bànneex la fekk lu salte la yomal xiyaamati lañ koy xam bu fekkee bakkaar sobe la dafa salte comme noonu ma ko waxee alal ji nga xam ne alalu bakkaar la nga di ko lekk alal ji sobe la ñam woowu sobe ndax li sobe la bi rek moo nekk ci ñam yi te mooy bàkkaar sobe nag ndax jar na jaay diine jaru ko jaru ko boo demee ba àllaaxira da xam ne ñii di bànneexoo àdduna ba jaay lislaam te mënuñoo jaay lislaam mënuñ ko yàqal ndeysaan miskin ay miskin lañ seen boppar lañuy ñuy danga xam ne ñoog dof bi nga gis muy naan foos te boisson yi nekk fi ñooyam foos bi du neex na ci dof bi yow de naan ko ak loola rey ñu nga yemale xalal ju xaraam noonu la mel lekk lu xaraam noonu la mel bànnee xoolu yàlla daganurut noonu la mel ki gindeeku rey ko moo ko gënal def ko lool parce que da ko seexlu ruuxam moo ko seexlu ndax dafa salte moom yëg na salte gi waaye dox bi nga xam ne xelam nekkul fi moom moom mën naa naan fos parce que yëgul salte bi mais yow sa xel nekk loolu moom dañ la def lu ne waaye xalaatoo ko na naka noonu nit xelam gàtt ci wàllu lislaam yàlla muur xolam noonu lay mel bakkaare daf koy neexlu fekk neexut dégg nga yow xam ne yàlla génn la yooyu day salteg yow ñaaw ak yow xalaatoo ko def rayal sax mënu ko gën a yomal xiyaamat nag ñëpp danañ wér ñu nekkoon bàkkaar danañ xam ne nekk nekkuñ ci tus dañ naan law kunnaa nasma'u aw na'qilu é ndég amuñu woon xel mm-hmm. wallaay ndax ñàkk xel moo tax ñu mën a jëfandikoo lu salti loolu ñu ne bu ñu amoon xel duñ bokk si waa safara mu amuñu woon xel mm-hmm. dof gi may wax ni moo nekk si ñoom ni dof nag des ko yërëm mais duñ ko roy mm-hmm. kon ku jël àddina jaay diineem perte na bul nga misaal bi ma la jox dof dana naan foos neex na ak moom waaye neexut ak yow lu leen séparé xel ñii seen xel mi nga xam ne mooy xel mi waroon a gindeeku moom muuru ñuy lekk àddina soo xam ne sobe la yow nag yàlla gindi gim la gindi moo tax nga seexlu ko bàkkaar noonu la salte wala nga ne wala ma ba gis ñami aljana yi kër ya dëkkuwaay ya naan ya soxna ya xam nga def àddina bi dafa mel ni ñami gunóor si yow xam nga gunóor gunóor yi dañuy bëri ay affaire di ko lekk xaar nga ko lekk yow yow yaa ngi ci mis bi waaye yéen moom ku la ko naa lekk nga am problème cox bu xaree bëy dañ koy lekk yooyu xalaatoo ko jël àdduna bi ñamam yi noonu la suufee ci kanam àllaaxira boo demee ba gis ñami àllaaxira yi ak nam neexee àdduna ñami gunóor la maanaam bàyyi may rek ñu koy jëfandikoo gunóor xaal boobu la toll moo tax mu soxla fasik béy tumaranke moo tax ñuy ay cuxak yooyu mais yow tumaranke ko yaa ngi aljana mm-hmm. la suufee ci kanam ñami àllaaxira rawatina nag ñami àdduna boobu bu fekkee dafa ànd mooy moo yàlla dafa indil tooke sa yaram salte tamit booy mal xiyaamati nga lakk ci xesaw ci loolu jar na ko kon moytul mbooleem ñi nga xam ne dañuy xeex ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci alkandal lañu mujj waaye duñu am ndam ba mukk ndax ñu leen ëpp doole ñu ngi fi woon ndam te dañ koo fësaloon kat ñoom buñ demee bay nëbbatu luñ ci man noonu bu fës bu demee ba nëbbatu néew na doole <laughs> bu noonu demee ba gën a néew doole nag bu ci bokk xanaa ba nga balaa ngay bokk ci mbooloo sax xanaa mu xam doole waaye kuy làqatu ku am doole mm-hmm. amatuñ doole ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo jënoog moom mënuñ ci moom dara mm-hmm. buñ na butoo nu ñu mënee ci moom dara borom xel yaa fi kon ñun duñ tuumaal ken waaye kuñ gis nga waxi dof ñu moytu la te mission ñu bon ñi ku ko porte ñu moytu la mm-hmm. كن فحفظوا وطن يعني شو انت بس لازم ما بلغهم لمن جوت يعني لا مدير الشيء اللي عزنا انه وجدت ما قدرنا نسحبه وما سن لم سن الوطن انكو والشرع لم يرى الوطن انكو ووعاه يمكلك واتقنه يقينك ففقه يدق في الدين في دينه وعلموا يقم له ولا وعلموا يقم امر الله يمرم يلا نقل يلا ونهي اكترم ومراد اغلى لنا متجام صحابي نيرنجه ay nit ñu baax lañ ñu set lañ andil ñu diina ji diina jooju set la yàlla ñu boole yàlla boole ci nga xam ne jàpp diina jooju intaha jeex na mu laxasan di luñ tënk ci waxi ibnu abi hatim mu ne wasiyaati dana dikk masidu tafsir yi ko leeral xanaa ci tabaqa ci bile étape di fasli saani ci xaaj ñaare min hadal baabi ci bile bunt bi li laay si ndigal yàlla maanaam sahaba yi dana ci waxaat ci xaaju ñaareel bi ci bunt bi ñu nekk dégg nga baabu awal moom bunt bu njëkk dafa am ay faslu xaaj ñaareel ba dana ci dana waxaat dara ci saxaaba yi in uridu al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh